Est-ce que c'est la waa Zal yow doo nuyoo talu may ndaxte Sénégal moom mooy dëkk boo xam ne chaque jour qu'on dort qu'on se réveille y a de nouveaux dossiers rawatina nag mu doon dossier borom ñaari tur yi la problème bi nag moom tey jéggal leen ma ko ndaxte fu ma dégg ñuy jéem a promouvoir borom ñaari tur rek hmm? damay tiit ba duma mën a nuyoo ndaxte bu ci yàlla mere du yam ci ñu ko doon def dara ñëpp lay maasaale yow looy wax ni billaahi wallaahi. erreur bu nag def moon vidéo ndaxte damaa nekkoon ci activités yi nekkoon ci yeneen bagage yooyu noonu rek. ba sànq si ngoon lañu ma ci interpellé. si laa gis vidéo bi. ak rajan mais maa ngi mel ni kuy sotti dix litres essence ndax saxaar loolu dafa ñaaw nañ waxante dëgg dara mënu ko justifier mais c'est bizarre moo tax tey nag dina mel ni muus mi ñu bëtëgee ay yamb hmm? dina ma nuru tamit jour bi ngóor di jaay mbaam mi ne noppi du dem ah tey sax du ma def dialogue de conférence de presse laay def ñëpp génn li ma bëgg wax ma si mois bi góor jigéen yi nekkee di féete seen fête si moment boobu leen jug di def suñuy vidéo naan ñoo lank ñoo bañ góor jigéen du fi amee teewul ne chaque minute ñu ñuy menacé ñu jàpp fi ñu jàpp rek te naan ragal yëpp yàlla la pousse boobu dafa xaram te xeex góor jigéen ci jaamu yàlla la bokk dëgg du romb nopp yéen nag ngeen yëg ci kaw seen Sénégal yëpp yépp di leen seetaan diggante góor ak góor ngeen di fóoyante ci kaw seen bi di mettre en valeur góor jigéen yi góor jigéen loo ci mettre en valeur bëgg lu bon rek te koo si xanaa yow góor jigéen nga nga dégg mu ne astaghfirullah doomi xaraam boo ma ko waxatee borom ñaari turi ma toj lu bon de. te rek nag dañuy def. te li ma si gën a métti am ñu taxaw naan lii dara lu yéen yéen a yokk danger bi. en tant que góor ak góor nan lañ mën a ci kaw seen di fóonante ñuy wax nga naan dara nekku ci nit ki donte da nga koo bëgg bu defee lu dul yoon da war a taxaw carrément ne ko li nga def nii du dëgg du yoon muy waale ku mën a doon laa ci yemale. mais bëgg nit ki ba tax bu defee lu dul yoon rek nga taxaw di ko neexal wala moo koy défendre. man góob ma loolu man dund ma loolu tamit quoi franchement. li nga wax mooy dëgg. man moom defe naa ne tey moom lépp lu ma bëgg a wax dinaa ko wax. ku ma ci mere kooku c'est pas mon problème. te sax man ci a mere mu metti ma mais dëgg te dëgg ñëpp xam na ne moom moo neex yàlla te ku dëgg rek xam na ne dëgg moom moo njëkk te moo mujj. wallaay wallaay ku ma ci mere moom kooku c'est pas mon problème. dëgg du romb nopp. ndaxte dëgg moo neex yàlla te ñun ci lu neex yàlla rek la ñuy dox. li nga wax moy deug man dama xamul ñi ñom ba intention li ci jël sax far nak la xamul man. ba nuy fecc man ak ëmadi di di sanante di def ay affaire lolu intention ba spectacle la. Eh, astaghfirullah kon legi di fonante ci kaw sen mom ngeen bëgg def legi spectacle pour bëgg may goor ci ngeen fit. yow day dama la rus rek da nga yaru lool. deug la yaru mom moy sama deuxième nom. ma rus lu ma rus la mais tay question bi ma laaj ni waaw bu ma ko kenen laajoon. waaw. billaay du yàgg dinaa ko won di doomu banlieue dëgg laa. ñëw ne ay góor yàlla la ay banlieusards lañ fii ñu ñëpp ay banlieusards lañ. teg si nag taxaw bañ góor guñ def yëfu jigéen. am na wala amul. waaw loolu dafa leer. te sax lii ba nit ku baax mooy taxaw di ci encouragé sax laa xamul. ñi baax ñi ñëpp apprécié Ahmed bëgg la. jàppal na kon ñoom ñooñu ñoom ñoo la bëggul ndaxte nit ki man de defe naa ne bu nekku ci dëgg. te nga bëgg ko te yàlla rek tax nga koy wax dëgg bu deful lu dul wala nekku ci dëgg da ngay taxaw carrément ne li nga def dëgg di yoon li nga wax mooy dëgg mais tamit nit ki deful dëgg ba pare nga koy jay wala nga naan ko yaa fi ne mais c'est honte waaye dina wax dëgg nit ñi ngir yàlla war a suul yi dëgg du rombi nopp attends yow sax taxawal est-ce que xam nga lan moo njëkkoon a tukkal àdduna à l'époque góor jigéen ñoo ko tukkaloon mais li nga def nii ak yëfi góor gis kay ak noir ngay <laughs> gisuma ko. en tout cas lenn rek laa am lu ma lay wax moom jëf ji mel nii moom bu ko defati la yàlla Mouhamed yàlla na la yàlla alak. ah. Eh, astafurlah. li nga wax ndaxte yow yaakaar naa ne jëf ji nga def nii alal la moom moo gën a yomb diggante góor ak góor ñu nekk ci kaw seen. waay waay waay lii lii waay waay mbir mi dafa désolé waay. mais sax attends ana Serigne gis naa fa ñaari yambar yu góor ñu taxaw def fecc bay daane def fonante yoo xam ne bu dëkk bi amoon sharia dañ leen di rendi ak rajan max rajan ah waaw waaw ndaxte damaa xam ne jëf ju ñaaw ji ñii naka lañ ko mën a defee sax xamul fallu lii de ñoo ko gisandoo damay xalaat xale yu ko war a challenge rek challenge kan moo ko ñemee loolu de defe naa ni kenn sañu ko laa foog maa ngi xaaru ba góor ak góor taxaw naan ñi ngi challenge lii naan ñi ngi fóonante laay xaar maanaam ci gàttal boo bëggee dégg-dëgg cas bii bu doon pharmacie man maay agent sécurité bi. am na wala amul. waaw loolu dafa leer. maa ngi xaar doo egg. amatuma équilibre. yéen li may expliqué premier bu ngeen nekk naan da ngeen may ñëwoon naan da ngeen di tiktok. eh Fulkan. aja eh sëy leen tasaaroo leen. fii moom góor day góore dal ci kom ku rof la yor wa fi mom kën duko fi tiktok tiktok yi fi góor jigéen yi ñàkk fee day bëgg ñoo sonal fi comme ça góor góor mom góor rek sino mafia bu dal seen kaw kur gi nak mo lool ci mafia bu la bok leen nañ nak laa leen wax <laughs> li dafa désolé wa <laughs> mais góor rek sino kur gi mom ku rof gaay nii ku baaxal gaay ni ma té gaay nak bu lol wéso xalé ñu la benn problème bu ndaw Serigne mustapha waxata ñu dégg képp ko xamné demoon nga ci soirée Wally Seck ba. waaw. ñëpp laa wax ñoom ñëpp. fi mu toll nii ñëpp a ngi lay déglu. safara ngeen jëm. sëñ bi ñoom léegi buñ tuubee nag. ni ñu tuubee. muy yéen. yàlla yërmandeem yaatu na ñoom ñëpp ku ci tuub yàlla jéggal leen. ndax ñi nit dañ koy tuub. 3500. mais attends sëñ bi yow Wally Seck mosu la fee way. Wally way ni ma de. ah kon boog gars yi nañ seetaan vidéo bi te amatuma équilibre. sëñ bi kii kan la. man. yow la kay xamee naa la de. problème yaa ngay démarrer la problème yaa ngay démarrer la. léegi sëñ bi accal sa bopp comme que pirim dim nga ne safara. moo tax ba ci mam ñu woy sax mam ñu safara laa jëm. yaa Cheikhul Ibrahima Baba Lamine Diassé. xëy loolu saful wax. comme que yow da bëgg a jël safara rek daf ko rido may nga ku tarxis ba dugg rek foog nga ne brochette lay jënd te alors que may nga day jaay omelette wala spaghetti sec kuwent laajal les anciens maanaam moo ñu yàgg dugg may nga comme man xam nañ li may wax dëgg du rombi nopp sëñ bi yàlla bëri na yërmaane de te ku ci nekk ci ñun xamul fan nga mujj ëllëg xanaa kay ñu ngi ñaan yàlla rek ñun ñëpp ñu mujj ci lu baax rek waaw yàlla xiriñ ci def lu baax waaw ñu am mujj gu rafet la ñëpp di ñaan yàlla moom bëri na yërmaane te ku ci nekk ci ñun xamul fan ngeen mujj waaw vidéo bi loolu la kon de lii wax mbaa yéen it loolu ngeen wax. waaw ah, man ñun lii nañu mën a wax Ndoye Ndiaye. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. <laughs> <laughs>